mange pas, mais ils boivent. Merci. Et tous ceux qui sont en grève de la faim aussi ne mangent pas, mais ils boivent. Mais depuis quelques jours, ce qu'on a remarqué, parce que moi, garde des Sceaux, je suis euh, réceptionnaire, on, on m'envoie euh, les comptes rendus de ce qui se passe dans les prisons du Sénégal. quand on m'envoie les comptes rendus, je les lis, je les exploite. parce qu'il y va aussi de la responsabilité de l'État. Il résulte des comptes rendus de l'administration pénitentiaire que le samedi matin, le samedi matin, M. Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Le samedi matin. Il aurait donc interrompu sa grève de la faim. Je cite le compte rendu de l'administration pénitentiaire. Et que dans la plupart des prisons aussi, ceux qui sont en grève de la faim partielle, ceux qui sont en grève de la faim partielle, ont arrêté leur grève de la faim. La plupart. Je voudrais aussi bien euh, miser sur les mots. Je n'ai pas dit la totalité, parce qu'après, il va y avoir des polémiques. Je ne dis pas la totalité. J'ai dit la plupart ont arrêté les grèves de la faim. C'est pour ça, d'ailleurs, vous avez vu, euh, tout se passe bien. Euh, fort heureusement, il faut louer le ciel et souhaiter que ça continue comme ça, que tout le monde aille bien. Parce qu'on ne souhaite à quelqu'un de tomber, malade, on ne souhaite à personne de mourir. Voilà, il n'y a pas de, de, de, de, danger. Sauf que, parce que là aussi, il faut être totalement transparent. Je pense qu'il faut l'être. Il y a euh, aujourd'hui donc le sieur Ousmane Sonko qui est à l'hôpital principal. C'est une bonne information, c'est pas un fait. Il est admis à l'hôpital principal parce que quand vous êtes dans les établissements pénitentiaires, quand vous êtes en prison, si l'administration pénitentiaire se rend que vous n'êtes pas bien, on vous amène à l'hôpital. Parce qu'on ne veut Le but du jeu, c'est juste de vous appliquer une peine qui a été prononcée par la justice. Donc, il est admis à l'hôpital principal. Et quand il est arrivé à l'hôpital principal, il a subi des soins. Il a des soins et après euh, euh, administration de ces soins, je ne veux pas entrer dans des considérations personnelles, dans son bulletin de santé, je n'y entrerai pas, mais lorsqu'il a reçu euh, les soins, il se porte mieux. Il se porte mieux. Donc c'est une bonne information que je vous donne. Maintenant, je vois dans les réseaux sociaux euh, des militants de son parti qui disent qu'il est, mal en point, etc. Je, voudrais quand pour le donner au conseil, ben, au conseil gratuit. Quand vous avez un leader qui est en prison, il faut montrer qu'il est courageux, il faut montrer qu'il est robuste, il faut montrer qu'il est résilient. Mais si vous dites non, il est tombé, il, se sent mal, euh, il va mourir, non, pas du tout. Le leader, on lui souhaite longue vie, on lui souhaite bonne santé, on souhaite, euh, et on dit qu'il est en bonne santé, il résiste. Mais voilà, même les fake news, il faut quand même parfois faire de bons fake news, les manipuler. Donc c'est un fake, il n'est pas malade, il, est bien suivi. Et pour montrer bien suivi pour ça qu'on ne le garde pas dans les, dans les prisons. Il est bien suivi où À l'hôpital principal. Évidemment, bon, euh, veut pas dire qu'on est à l'hôpital principal, Oui, il est toujours en prison. dans un centre où il y a le plateau technique pour assurer correctement leur, leur, leur, prise en charge. donc euh, il y a d'autres qui sont euh, au pavillon spécial euh, de Dantec. Pour l'essentiel, ils ont arrêté la grève de la faim. Il y a le CIE Pape Alignan qui continue sa grève de la faim. Et vous êtes journaliste, je dois aussi être transparent avec vous. Il a, a Euh, choisi de continuer sa grève de la faim. Euh, tous les pensionnaires de l'hôpital acceptent les soins et s'en bien ou mieux, mais lui, il pas les soins. Ça aussi, je dois vous le dire. Et je veux aussi que l'information soit relayée. Lui, il n'accepte pas les soins. C'est un souci de transparence. Parce que je pense que la communication, c'est ça. Il n'y a pas à cacher des choses, non. Il observe la grève de la faim, et, mais ils refusent de prendre des soins. Évidemment, il peut y avoir des conséquences dommageables. Mais, mais l'hôpital assure un suivi et un contrôle régulier sur son état de santé. Donc voilà ce que je voulais dire euh, euh, sur euh, le suivi sanitaire des pensionnaires des établissements sanitaires. Et puis je vais peut-être terminer par, par un point, euh, c'est sûr, l'attentat. Parce que, en réalité, c'est aussi un attentat. L'attentat qui a été commis à Yarach, sur un bus. Des individus qui sont dans un bus, qui euh, vont aller à leur travail, qui vont vaquer à leur, à leur, à leur, à occupation, euh, se sont vus larguer dans le bus qui les transportait un cocktail Molotov. Ce n'est ni plus ni moins qu'un attentat. c'est un acte terroriste. Et je voudrais en profiter ici pour dire que les actes terroristes sont prévus par notre législation. Et notre législation, notamment le Code pénal, dit constituent des actes de terrorisme punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'ils sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d'intimider une population, de troubler gravement l'ordre ou le fonctionnement normal des institutions nationales. Mais toute personne qui recrute une autre personne pour faire partie d'un groupe ou pour participer à la commission d'un tel acte terroriste est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. De même, toute personne qui fournit ou propose de fournir des armes à un groupe, à un membre d'un groupe ou à toute autre personne pour sa participation à la commission d'un acte terroriste est punie de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc les actes de terrorisme, ici je voudrais vraiment insister sur ça à l'intention de Et c'est des faits criminels pour leurs auteurs, pour leurs complices. Et c'est des faits criminels qui sont qui font l'objet de condamnations pénales, notamment la réclusion criminelle. Donc ici, je voulais en profiter euh, pour parler aux jeunes, euh, aux jeunes euh, membres d'organisations euh, qui, qui, qui envisagent ou qui projettent de commettre de tels actes d'attirer, d'appeler leur attention sur la gravité de tels actes et que de tels actes appellent un traitement pénal sévère. Le Sénégal est un pays, est, est un État de droit, euh, c'est un État qui se caractérise en Afrique par sa stabilité politique, sa stabilité politique exemplaire. C'est une grande démocratie, le Sénégal. Euh, le Sénégal est entré dans les démocraties avant bien des pays européens, avant bien des pays américains. Donc c'est un pays où l'État est fort, l'État est debout, c'est un pays avec euh, des institutions fortes et le Sénégal ne pas accepter des entreprises qui visent à traverser notre fonctionnel et à que je peux faire à dire. pour d'éventuelles questions. Voilà, je vous remercie. oui bon je, voilà en wolof salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp ku nekk ci ak ci santam di leen ziar euh, fan yi nag dañu seetlu ne bi ñu ne dañuy jàpp Ousmane Sonko ba léegi am na ay manifestation dañ ko jàppee euh, ba dugal ko ci kaso dañu gis ne dafa am ay manifestation yu am ci réew mi waaye manifestation yi euh, suñu seetloo ci ndakaaru la région de Dakar ak région de Ziguinchor foofu moo am quelque manifestation même ci biir Dakar sax ay quelques points ñoo ko am ci biir loolu nag am na ñoo xam ne dañu jógoon pour yàq pour toj pour lakk ñeneen ñi ne euh, daaneel leen nguur gi appel à l'insurrection ñeneen ñi di ay cocktail molotov ak euh, yu mel noonu pour taal réew mi yàq lakk ñëw fekk ay biens yoo xamante ni état bi moo ko moom wala collectivités locales yi ñoo ko moom wala sax ay biens yoo xam ne ay privé ñoo ko moom ñu koy yàq def ay manifestation yoo xam ne dañ koo tere loolu nag bi mu amee jàpp nañ ci am na ñu ñu ci jàpp ñu xaw a takku nag ñoo xamante ne jàpp nañ leen waaye ku deful dara kenn du la jàpp ñi ñu jàpp mooy ñi bëggoon lakk ñi ñu jàpp mooy ñi bëggoon toj ñi jàpp mooy ñi nga xam dañoo ñëw yàq de yëfu jàmbur loolu ñooñu nag jàpp nañ leen loolu moom nekk na loo xamante ni euh, gouvernement du Sénégal daf koy assumer ndaxte gouvernement nag suñ ko waxee nag bala ngaa nee nag gouvernement laa euh, gouvernement euh, nga boo xamante ni say euh, citoyen dañ lay respecté mooy gouvernement boo xam ne da ngay indi nag jàmm da ngay indi dal da indi ordre da indi ba nit ñi suñu génnee du ñu ragal ñu dogale leen da ngay indi ba nga xamante ni jaaykat bi su ubbee boutique am nit ay ay wuyu ñëw toj ko da ngay def ba nga xamante ni ñi bëgg a def ay acte de mooy ñëw fekk lu mel ni li amoon yaraax benn kaar boo xamante ni dafa ñëw di daw ñu sànni ci cocktail molotov euh, euh, mu am ay gaañu gaañu ba am ñaar ñu ci dee loolu gouvernement bu am fayda gouvernement bu xam li ñu ko dénk du ko nangu loolu moo tax ñu jàpp ñooñu nga xamante ni jàpp nañ leen waaye ci biir loolu nag dañoo seetlu ne euh, dafa am avocat tubaab boo xamante ni moom dafa ne mi ngi bokk ci awokaa Ousmane Sonko yi waaye moom su nekk bi mu nekkee fële ci Europe day day day def li ñuy wax ay appel à l'insurrection day wax sénégalais yi jóg leen euh, daale leen nguur gi lakk leen euh, euh, yàq leen toj leen waaw parce que moom sax bind na benn lii boo xam loolu la ciy wax nu ñuy yàqee nu ñuy tojee nu ñuy toje commissariat nu ñuy lakkee ay dëkk waaw loolu kooku nag bi mu defee loolu yëpp jëmale ko ci suñu réew suñu réew dafa defoon nag li ñuy wax mandat d'arrêt international mandat d'arrêt international mooy dañoo def benn këyit boo xamante ni dañ naan réew yi mu mën a jaar yépp wala Interpol foo leen ko mën a jàppe jàpp leen ko ngeen jébbal ko Sénégal bi mandat d'arrêt boobu amee nag moom mu tànnal ci boppam ñëw biir Sénégal làqatu nag dafa làqatu làqatu masqué wu ñëw Sénégal gisuñu ko sax bi muy dugg si ndax dafa masqué wu jaar fu compliqué mais bi mu ñëwee fii ba ñu yëg ko dañ ko commencé di seet ñu seet ko mu dem euh, jël gaal euh, dem ci géej gi dem ba Mauritanie foofu lañ ko jàpp fa dem ba Rosso roso ci Rosso lañ ko jàppee euh, indiwaat ko fii remettre ko police Sénégal bi ñu ko remettre nag comme mandat d'arrêt la mandat d'arrêt su ñu ko defee ci yow mooy su la jàppee rek kaso nga jëm amul sax jaar ci procureur ak yooyu déedéet dañ ko jàpp rek yóbbu ko kaso bi ñu ko yóbboo kaso nag comme mandat d'arrêt la benn juge d'instruction moo ko émettre mooy juge d'instruction deuxième cabinet moo ko inst moo ko moo ko euh, lancé woon ñu jébbal ko juge d'instruction bi bi mu ñëwee rek juge d'instruction bi xool ko mandat bi kon jeex na dañ doon wër pour jàpp ko jàpp nañ ko ñëw na taxaw ñu ne ko léegi nag juge bi nag ko léegi nag yow dañ lay ndax ak li li ñu lay topp yépp Sénégal te nga def ko te mu nekk ci mandat d'arrêt bi loolu nag dañu la koy toppe waaye loolu suñu la koy toppee mu mënuñu laa juger lundi wala mardi wala mercredi flag li ñuy wax flagrant délit déedéet am suñu waxee euh, appel à l'insurrection acte de manœuvre à à à a provoquer euh, à à à mettre en cause la sécurité publique Euh, renversement de l'ordre constitutionnel nekk na yoo xamante ni nekk na ay infraction yu ñuy wax criminel yoo xam ne soo ko defee euh, yoon daf lay imposer souvent pour nga dem li ñuy wax information judiciaire mooy nga def l'enquête ba leeral loolu ba mu leer nañ donc loolu moo tax juge d'instruction bi ñu ko woowee bi ñu ko bi ñu ko ko jébalee indi ko présenté ko daf ko inculpé inculpé ko waaye inculpé ko ne yow li ñu lay toppee nii euh, l'enquête bi temps bi mu laaj mën ngaa yàgg fii trop trop trop te Sénégal la détention c'est l'exception la liberté c'est la règle waaye nag dañu lay teg contrôle judiciaire ñu la defee contrôle judiciaire mooy inculpé nañ la da ngay da ngay nekk à la disposition de la justice sénégalaise may nañ la liberté provisoire may nañ la liberté provisoire kenn libéré wu la da nga dem ñibbi noonu déedéet ëllëg suñu la soxlaa da ngay ñëw su amee lu ñu soxla ci yow mun nañ def commission rogatoire mën nañ la condamné suñ la condamné da ngay ñëw purge peine bi wala comme am nañu accord de coopération judiciaire ak France nga condamné ko foofu suñ la condamné laa wax suñ la condamné mun na tam bañ a nekk ay condamnation mais pour wax rek ne contrôle judiciaire la nekk am liberté provisoire loolu nag bi mu amee ministre de l'intérieur moom def arrêté d'expulsion defal ko arrêté pour ñu expulser ko pour mu génn Sénégal dellu dëkkam ba ba yoon Sénégal di ko soxlawaat ci nag gis nañu ne am na Euh, benn avocat Sénégal boo xam ne jàppale na ko ci loolu nga xam ne mi ngi ko doon def tout au moins éléments yi ñu am ak enquêtes yi ñu am wane na ay indices ay éléments yoo xamante ni wane na ne moom jàppale na euh, euh, avocat boobu jox na ko otoom dimbali na ko loolu yëpp nag bi ñu demee ba enquête bi wane ko moo tax moom tamit ñu jàpp ko bi ñu ko jàppee nag gis nañ ne ordre ordre de avocats du Sénégal def nañu communiqué ma ne loolu nag yoon la. soo leen nekkee corporation muy journaliste yi muy professeurs yi euh, muy muy muy avocat yi su ñu jàppee kenn ci seen ñooñ nag dañ naan ñu bàyyi ko loolu ñoom yoon la comprendre nañ ko waaye ñoom ni ñuy defee seen liggéey ne pour ñu bàyyi ko nguur gi tam état bi tamit noonu lay defee liggéeyam état nag amul kenn koo xamante ne da nga nekk au-dessus des lois du avocat du magistrat du professeur du kenn du déet kenn nekkul au-dessus des lois du ministre du député kenn kenn nekkul au-dessus des lois moo tax ku yoon war a topp ku yoon war a euh, tegu ci sa kaw day tegu sa kaw loolu moo tax ñu jàpp avocat boobu mu nekk en garde à vue biñ ko jàppee nag avocat yi wax laaj ne ñaan lañu ñu ñu bàyyi ko waaye dañu maintenir garde à vue bi bâtonnier bi signé na benn communiqué ma ne ko waaw communiqué boobu de ñun mën nañu ko comprendre ndaxte loolu yoon la soo nekkee bâtonnier mu am avocat bu am Euh, jafe-jafe ak nguur da ko war a jàppale waaye tamit dama ne bâtonnier bi tamit su amee ay awka yoo xam ne dañoo def lu dul noonu war na leen ko wax su amee ay awka yoo xamante ni benn waaye day def lu lu àndul ak yoon euh, di def euh, entrée entrée et séjour irrégulier dans le territoire sénégalais awka bu ko def bâtonnier bi def ko ne loolu waroo ko def awka yu organiser conférence de presse boo xamante dafa am koo xam ne dafa am mandat d'arrêt international ñëw di ci bokk bâtonnier bi war na leen wax ne waroo leen ko def donc nag waxtaan wax dëgg ca la moom lay wax tamit yenn saa yi sama xarit journaliste yi man leen yéen tam da ngeen di wax ak seeni i seen seeni seen bu leen bàyyi ba ñu jàpp leen ngeen ñëw ne bàyyi leen ko da ngeen leen di wax tamit da leen di wax ne leen bu leen def loolu loo xamante ni aussi yoon euh, yoon da koy tere su boobaa ci la affaire di gën a yomb donc euh, maître euh, Babacar Ndiaye boobu dañ ko jàpp mu ngi nekkoon garde à vue depuis samedi pour recel de malfaiteur ça veut dire que dafa jàppale koo xamante ni li muy def tegu ko ci yoon léegi nag bi may dugg si fii la ma procureur général woo ne ma comme la ñu defal maître Blanco juge d'instruction bi inculpé na ko def ko sous contrôle judiciaire may ko liberté provisoire moom tam liberté provisoire la ko may comme ñaari avocat la ñu woon ñu may leen ñoom ñaar ñëpp liberté provisoire ñu resté nag à la disposition de la justice saa yu leen soxla